élection présidentielle ngir tabb njiitum réew ci atum 2024 ci pàcc yu bëri la nar a amee pàcc bu njëkk bi mooy dépôt dossier yu mat ngir ñi nga xam ne dañu bëgg a nekk candidat foofee ca conseil constitutionnel ñaareelu pàcc bi doon ñu saytu ndax dossier yooyee ak li nga xamante ne moom la ñu laaj ngir nekk candidat dëppoo na te ñi nga xamante ne di waa conseil constitutionnel ñoo koy saytu ñetteelu pàcc bi mooy campagne électorale bi nga xamante ne candidat yi conseil constitutionnel validé ñoom ñoo ko nar a amal ci réew mi ak ci bitim réew pàcc bu mujj muy bés bi ñëpp di xaar muy fukk fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 muy jouru vote bi waaye lu ci mënti am bu fekkente ne benn candidat amul lu ëpp ci voix yi maanaam genn wàll ak bu teg benn dinañu dem ci ñaareelu pàcc bi mu nar a dox nag si ñaari candidat yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ñu leen voteel bu boobaa daañu xam kan mooy juróomeelu président fii ci Sénégal loolu sax nag yegguñu fa waaye ngir nekk njiitu réew dina gudd te bëri ay xaaxaam ku nekk nag na nga xam ni ngay tojee sa bopp jinax toog nag si siège président bi du doon lu yomb daanaka sax pàcc bu njëkk bi maanaam déposé dossier candidature yi rek gis nañu ne ña waajaloon seen bopp ca départ ba tolloon ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay candidat taux bu ndaw la ñu gis ne ñoom ñoom bu ju déposé yegguñu sax ñetteelu xaaj bi lu waral ñi sampoon seen ndënd fësal ko dellu ginnaaw bëri na ñenn ñi jàpp ne waajaluñu seen bopp bu baax ñenn ñi ñoom daanaka amuñu ay parrain yu doy ñenn ñi nag nangu ne amuñu xaalis bu doy ngir déposer caution ñenn ñi sax nit ñi ñu soxla ngir waajal seen bopp ci présidentielle bi amuñu ko ñu bëri dëggalu ñu woon seen bopp. ñaareelu pàcc bi tamit fësal na ne dina am yu bëri yoo xam ne dina bett nit ñi muy ay surprise ndax bu ñuy valider candidat yi am na ay règles yu kot électoral tëral faw nag ñu respecté ko parrainage bi ak logiciel bi dina am ñu bëri ñoo xam ne dina leen génne ci xëccoo bi dinañu segg bu baax a baax. ñetteelu pàcc bi tamit ci élection yi dina wane ay xëccoo yu metti ngir gën a mën a positionné wu ngir dagan baatu askan bi loole yëpp di loo xam ne ñu ngi koy séentu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy voté électeur bu nekk nga mën koo jot loolu nag mu laaj énergie bu bëri ngir baab ñi nga xam ne ñoo war a wote waaye nag ci yoo yee yëpp nga xamante ne élection yi daf ko laaj ki askan bi gën a wóolu dong moom moo nar a toog ca seesu président bi kan lay doon dootul yàgg dara ko xam